Uh, aouzubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim aouzubillah bismillah inna waliyallah gannaaw ba nu sante buur bi subhaanahu wa taala di julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sunu yaakaar tey ëllëg Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul di ñaanal sëriñ Mountakha Bassirou sunu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ba lépp li mu naanal maamam ju tedd gi Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul lu yéen a ji am rek yàlla na kàttan gi ëpp noonu la ñuy profité nag jaaree da ba baax daat siyaar sunu buntu ci yoon bi di sëriñ xaadim doo gaydal borom daam mu sëriñ moo Moustapha Lo mu sëriñ Modou Lo Issa di ko ñaanal gudd fan ak wér ba lépp lu mu laal lisaam gi rek naanal ko ci liggéeyal ko tedd gi mu agale ko ak sogoom lu yéen a ji am kàttan gi ëpp ko bu ko siyaar siyaar waa baax daal gépp te ba jàkkee murit nag siyaar sëriñ Seex Touré xalifa sëriñ Saliou di ñaanal sëriñ Saliou Touré borom yokk ay leeram tas ci barkeem di ziar sëñ Cheikh Touré bu ñu ko siyaaree rek daanaka siyaar nañ njabootu sëriñ Saliou Touré gépp nag jàll ba kër maam Elas siyaar xalifa ba di ko ñaanal sunu borom gën koo yokk gën koo yokk ay tawféex guddal aw fanam dem ba jaxaaw siyaar sunu xarit sëriñ Baara Cissé mu El Hadj Ndiouga Cissé xamante ne saa su nekk day topp jotaay bi buñ ko siyaaree rek siyaar Cheikh Moussa Seye mi nekk ca buntu jaxaaw ba ci biir di sunu xarit di ko yàlla baaxal siyaar sunu yaay yëpp. waa groupe sopp nabi yi nekk foofu yëpp ñu ngi leen di siyaar baax a baax a baax a baax a baax di jiital ci groupe boobu nag waa groupe sopp nabi sunu yaay aadama di leen ñaanal sunu borom yokk seen tawféex ñoo fii nag ci kër Cheikh Abdoulahi Al Yaqin ziyaar xalifa ba soxna Saybata Aydara di ko ñaanal sunu borom guddal aw fanam wéral ay cëram ziyaar rakkam soxna ay dara di leen ñaanal sunu borom guddal seen fan lool ci barke Cheikh Abdoulahi Al Yaqin jàll ba kër sëñ Babacar Ngom ziyaar xalifa ba sëriñ Rijal Ngom Baye Rijal ñu ngi koy siyaar bu baax jaada ko ci buntam jëwrinam di Serigne Modou Ngom bu ñu ko siyaaree rek siyaar njabootu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni gépp itam noonu la ñuy nag siyaar waa kër Cheikh Abdoulaye Al Yaqin gépp ñi nga xamante ni dañuy topp jotaay bi saa su nekk di jaay rek groupe sopp na bi bi samp bu yàggul dara waa axlu yàqin nga xamante ni dañoo créé beneen groupe tuddee ko groupe sopp na bi suñu yaay soxna Ndeye Ndiaye nekk ca bopp ba di leen ñaanal sunu boroom gën a yokk seen tawféex di fépp fu soppe nekk rek fu xarit nekk ak ñi nga xam dañuy topp émission bi saa su nekk di ko bàyyi xel dañ ci jox ay conseil ñu ngi leen di siyaar di ñaanal sunu borom yokk seen i tawféex télé bi nag ñu ñëpp di jël siyaar bi président bi di Serigne Mamadou Seck di ñaanal sunu borom yokk ay taxawaayam buñ ko siyaaree rek. képp koo xamante ni acteur nga ci biir télé bi rek ñu lay siyaar di siyaar directeur programme bi Serigne Khadim Soumaré nga xamante ne moom du sonn du tàyyi ci liggéey bi saa su nekk mi ngi xool li doxal télé bi di ko ñaan suñu yokk ay taxawaayam siyaar waa télé bi yëpp siyaar technicien bi Babacar di ko ñaanal suñu borom doole ay kattanam ba ci caméraman bi di maam El comme tey nag fii émission Al Ikhsan ñu ngi dalal nit ku baax nit koo xamante ne ku ko gis ak yaram ak ak dalam ak bëgg lu baax. muy sëriñ Ibrahima Yàdd mi toog li nga xamante ni incha allah réew tey bëgg nañoo ñu waxtaan ci al ihsan ak li nga xamante ni moo nekk ci kanam dinañ ci ñëw ci biir waxtaan wi kon dañ koy bàyyi rek jëwriñ Ibrahima nga nga nuyu mbokki taalibe yi di seetaan. aouzu billahi min ash-shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallama tasliman bismillahi rahmaani rahim saddid lisaani nawir janaani safi amani wa sidbraay mm-hmm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Hmm. dellu service sëriñ As. Hmm. di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax. Hmm. di siyaare borom kër gi di kilifa gi. sëriñ Mouhamadou Seck. ak mboolem ñu seqal liggéey bi. comme ko waxee Xaadim nekk ci mbokku directeur de programme. bu loolu defe naa ni li nga matal li nga waxee ci kilifa yi doy na sëkk. am na sëñ Mountakha ba ki nga mujj a rek. doy na sëkk. xam naa tamit di siyaare mbooleem ñi nga xam ne nii ñoo nu fi yebal. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom laa bokkal métier mi. muy mm-hmm. waa alu tailleur. Mm-hmm. Eh, ñu fekk ñoom tamit ñu yebal ma fi. waaye nag ma sawar loolu ndax émission boo xam ne ay instant lañ ci waxtaanee. lu jar a waxtaanee la ci dañoo toll ci jamonoom nag. kon nag seen i loolu daal muy nuyoo bi si gàttal. Eh, ñu dugg si biir émission bi incha jox sa sëñ Ibrahima kon moom daa mel ni regroupement des tailleurs nga xamante ni moo sabab télé bi nga xamante ni télé bi ci ci ci regroupement bi la génne. ñu dalal koo xamante ni wax dëgg yàlla ci téer yi lay tamit doon doon doon kilifa doon yàlla baaxal doon borom bi ko ju rafet mooy sëñ Ibrahima Yade miy toog bu ko defee émission Alexandre koy présenté mooy seen seen mbokkum taalibe Baye Ass Ngom tey émission bi ñëpp xam na ni Al Ihsan yàgg nañ ko wax ndax nañ fi imam dalal nañ fi nitu nitu diine dalal nañ fi nitu aada dalal nañ fi koo xam ne jukkoom dafa rafet ndax émission bi moo moo moo moo bureau noonu koo xam ne jukkoom dafa rafet rek yàlla na ñu waxtaan ci wàllu jikko te ñëpp xamul ne ni jamono ji jikko yi ñu ngi commencé soppeeku ci lu baree baree baree baree baree bari bu ko defee tey Cheikh Ibrahima ñu ñu xool jamono ji ni mu bindoo nga xamante ni fi ne ni wax ju ñaaw ak ak ñàkk jox nit ki cër ak ñàkk jox nit ki respect ak jamono ji ñi nga xamante ni yaratunu seen doom yi ñi nga xamante ni yaratunu seen ñi ñi nekkal ndax fit fitnay àdduna bi ak pat mu bëri ay parparloo lépp nag ñu ngi koy mu ngi tënku ci wàllu jikko lan nga nu mën a indil ci wàllu ci wàllu jikko jikko. Ah, jikko ju rafet daal. sénaas xam nga émission bi dafa wuyu boppam. Hmm. al ihsaan. Hmm. ihsaan kenn mënu koo am te rafetaloo amoo jikko bu rafet. dëgg la. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla teg dafa ne laxalaa xuleexan se hmm. sa jikko dafa rafet. mu mel ni jikko ju rafet jooju moo tax nga mën a sellal. jamono bii nag dafa am loo xam dañ koo bàyyi. mu yarub kër. yaru kër nag li ci jiitu mooy wejur mm-hmm. wejur nag ndegam mooy wax loo xam ne nii daanaka boo xale déggee sax daal lii mooy lan mm-hmm. bon boobaa foofu la commencé jikko ji rafet commencé di ñaaw mm-hmm. ci kër yi la tàmbalee avant ñu génn ci mbedd mi dafa tàmbalee si kër yi ndax da ngay dugg si kër fekk fa borom kër goo xam ne muy soit muy yaay wala muy bàyyi mel melokaan woo xam ne da nga naa kii naka lay yar xale te yar xale day lu war ci nun bala muy génn ci mbedd mi xam boo déggee ku naa sama doom mbedd mee ko yàq rek mm-hmm. da koo yorul mm-hmm. am na yoo xam ne ala kulli xaal ñu soppeeku mm-hmm. ndax am benn waaye bu wax ni gattax lu mu yàgg-yàgg ci géej du soppaliku desi mais mooy dëgg am na ñoo xam fañ leen yare woon mënuñu faa dellu mukk di rus parce que dañoo topp jikko ju rafet ci comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko waxoon ni que langa laa xullekan asib nun lu war a roy ci loolu waaye yàkkamti. ak gaawtu mooy waral lu bëree bëri loolu duñ mën a sellal. parce que damay wax ni jamono bi xëy na ñi nga xam ne ñoo féete waare waaraate. dañoo waare dañoo dañoo yeetewut. mais dañuy waare. dañuy waare um. xam nga waare ak yeete bokkul. yaa ngi mel ni ku naa togg kii ni lakk. Sénégal dañoo toll ci lakk. te waroon na togg. dëgg la dañoo war na togg ba pare doog a lakk. Mm-hmm. mais dañoo lakk jiital togg. fi ne dèjà da ngay gis koo xam ne nii. da koy wax loo xam ne moom ëpp na xelam. soit na nga war ko delloo sa base ba diw yaay kan. diw yaay kan diw yaay kan ba keroog muy àgg. defe suñ commencé woon ci base boobu rek. parce que même tubaab bi daf lay naan abba az. dëgg la abba az mooy la. tàmbalee ci xale bi. tubaab bi dañ ñoo koy casse tout petit. ñun avant ça avant ñuy jóg. pour yar suñu doom dañ ñu casse tout petit. nañ baare xale yëpp bu duñ dem seen yaru seen yaru cosaan. dëgg la de yaru cosaan boobu nag mooy waral suñu jikko yi lu baree bari comme ni nga wax sànq nii. Mm. Eh, da gis koo xam day wax lu mu warut a wax. Mm. wala muy manque respect ku mu mm. loolu moo abbage boobu nu commencé wul noonu. moo nu lor. yi nga xam ne nii dañ ñu ko dañ ñu ko teel a casé suñu xale yi. loolu mooy waral loolu. c'est xam nga boo boo gisee sax ci biir loolu. mooy ne naan ànd boo boo wàccee sab ànd. ànd boo dem fekk fekk fa borom ndax nit ñi defe naa jàpp na ni sa sa doom bu wër bu gënee àdduna li nga war a njëkk def mooy mooy bu amee benn benn âge bi doo jóg comme li nga wax cas kaas tu petit ma sama français moom bëri mu lu ma ci saa ma waxee ku mel ne maam alaaji wala ñeneen ñu may seetaan dañuy ba sama français moo bindoo noonu léegi léegi ñi nga xamante ni léegi boo bàyyee sa ànd ànd boo dem da nga fekk da fekk borom ndax bu fekkee ne sa doom dafa dafa ci wàllu diine sa doom dafa gën a dafa gën àdduna nga jox ko turu la rayal ko rayal ko rayal ko gàtt rayal ko gàtt gi gàtt bi ndax mala la pour lépp lu jikkoy mala bu war a nekk moom gàtt deret bu rend bi boo koy rendi jikko jooju dàkkaale wu loolu bokk na ci li sabab loolu beneen bi mooy léegi sa doom day am ñaari at wala ñetti at jàngaloo ko alxuraan. jàngaloo ko loo xamante ni ci wàllu tàmbaliku diine la nga jël ko yóbbu ko ci wàllu nasaraan yi nga xamante ni nasaraan seen seen pexe àdduna bi yëpp mooy xeex diine loolu bokk na ci li nga xam ne liy tàmbali nag nàmpatal sab doom ci wàllu ci wàllu jikko ndax jàpp naa ne ki yaroo ci daara ak ki yaroo ci yaroo ci nasaraan yi boo leen boo leen boo leen boo leen tegee rek am na différence. waaw comme foofu sax daara. dafa am lu Mokhtar Mokhtar Seck wax. Mm. daara ju amul daa. Mm. mën nga faa dëgg la parce que dafa bari ñoo xam mën nañu mën nga ni ñii ci daara lañ jógee. Mm. mais est-ce que daara juñ jógee am na daa. Mm. parce que daara ju am daa mooy ki lay tarbiya tarxiya la. Mm. teg la ci siraatal mustaqim foo génn kii doomu daara la. dëgg su su dul loolu rek ci ay pexe lañ lay teg. pexe yoo xam ne nag surtout boo fa génn ñu ni kii de daara la mais en ñi jóge ci daara ci daara yu mel ñoo gën a yéeme. te yàlla si jëm bopp daf noo tënk ci lu baree bëri. daf noo yee. daf yow ma laa yan faw maa lahu wala banuun illaa mm. man atallaaha bi qalbin saliim dëgg la bis ngi ñëw boo xam ne nii doom dafa fa jariñ alal du fa jariñ mm-hmm. du doo ko dikkee yàlla ci xol bu seer dëgg la xol bu seer rek moo fay jariñ mm-hmm. xol bu seer naka nga koy mën a amee mm-hmm. il faut ñu teg la ci condition yoo xam ne nii tey ji yow mii yow aas nga ni ma de kër gi ma bokk rus naa faa def luñ may luñ may xeebe dëgg la atelier bi ma nekk rus naa faa def luñ may xeebe barab bi ma nekk rus naa faa def lu ñu may xeet mm-hmm. fekk na sa waa kër ñoo la ca teg mm-hmm. mais su nekkee yow sa waa bu la day jàngaloo daara mm-hmm. ngir bëgg a nelaw la imagine loolu parce que daanaka koy yóbbu sa doom daara image bëgg a nelaw rek a tax mais yaay bu dee nelaw doom bàyyi di nelaw kañ doom di yeewu dëgg la doom du gaaw yeewu mais il faut que ñu jël suñu doom ngir bëgg alxuraan mais du caagi ne dañ koo bëgg dañoo jël suñu doom yóbbu ko ngir dañoo bëgg nelaw kii nelaw mun te mun te mun te yee kuy kuy nelaw mhm. il faut nga yeewu ba pare doo yee sa doom mhm. li ma dox sànq ne la Sénégal dañoo jëkkante lakk mhm. àgg na ba ci ñuy jàng métier koo gis tànk muy jàng métier xaalis lañ lañ jiital te sëñ Tuubaa def ni kun kaatimal li durwal bu sàttamal xas dan wa tax lu ji la yaa mu taxalim del muñ lor Mm-hmm. tey muñ muñu naxar mm-hmm. boo ko defee rek yow muy jàng loo sa maas boo nekk di nga ko di nga ko di nga ko di nga ko kawe fal ilmu laa yuxtaa liman yaxsaa tawaa mm-hmm. bal rabbuna abdan sabuuran mooy ñi nga xam ne dañuy comm comm ngi ay ragale xiif mu boo ragalee xiif doo am xam-xam mu ndeysaan boo dem ba ci biir dem ba ci biir mu wax sa illah li diinihi mutaafisan islaa yanaalu xilma seen mujrim na ngay toppatoo diine yàlla ji te ciy lu day def loo man Mhm. ah mooy kat na moom du am doo am xam-xam. Mhm. mun la nag naa il kawaa iba wal xawaa nii waxta seen. il mhm. taddu min haaradan laa taslim. del soo di jànq jeeg jongoma yi soo bëggee mucc alkande mais xale léegi jongoma la ñuy jëkk wut. dëgg la de. jongoma la ñuy jëkk wut doogoo seet lu ñuy def dèjà boo toogee rek boo boo amut loolu da nga def ñu branché wu. dëgg la de boo nekkul ci loolu da nga naa branché wu. kon fakkaykale. pourtant yéen dañu koy faral di jàng euh, comme ni ñu wax. Euh, laa tëstëri dunya bi uxra yaafata dëgg la wa yaa fa sa yandamu dëgg la lay woy de mm-hmm. mais dafa war ñu koy ay message la waaw dëgg la comprendre nga parce que mu ne bul jënd àdduna dëgg la ndax boo jëndee sa àdduna boo ko jëndee àllaaxira yaa ngi mel ne ku dem ci ak leer te ko jënd ak mm-hmm. la def waaw wala génn koy kon nag mooy li xale yi def léegi dañuy dagg seen lépp def di loo xam ne nii amul benn importance. Mm. maanaam foofee rek dëgg la maanaam jikko li ci ëpp nag. ñàkk mm. métier ñàkk jàng. Mm. yàq jikko yi. dëgg la ndax loo gis la ci tàmbali bi la. beneen bi mooy boo gisee ci wàllu ci wàllu jamono ji ni mu bindoo nga xamante ni ci wàllu ci wàllu waxtaan ak nit nit ki nit ki am dara nga soxor wàllu soxor soxor jékki-jékki ni xool dëkk rek soxore ko. loolu comme li ma la wax sànq rek. Mm-hmm. Euh, bu fekkoo ne def nañ li ñu war a def. Mhm. nit du soxori nit. Mhm. ki am bu dimbalee ki ki ki ñàkk mhm. ki ñàkk du su dee bu koo ko am comprendre nga mais ki nga xam ne ni dafa am tëdd ci loo xam ne ni da ko war a dimbalee gis ko war a dimbali dimbale woo ko mais est ce que kooku dina ko yéene pour muy avance dëgg la de mais am na ñoo xam tey liñ naa foo suma ma tey nga am lu aw ëpp li parce que li ñuy wax kuy kuy kuy kuy kuy kuy kuy raam di la di la di la boot mhm. mais su amee oto doo doo taxaw dëgg la loolu mooy waral soxor gi et puis mhm. soxor gi tamit mhm. ñàkk ñàkk xam parce que tamit yàlla comme moom nee na ni waa maa man waa maa min daabatin fil ardi illaa alaa de amul kuy nekk ci kaw suuf koo xam sa wërsëg doo ko dëgg la de kon loolu soxor gi dëgg la ko mais il faut sa jikko rafet laa laa xule àla seen doo ñu waxat il faut mu su sa jikko rafetee sa lépp rafet nga sell. Mm-hmm. Mm-hmm. as am na koo xam ne doxinam rek boo ko gisee. Mm-hmm. danga naa kii sëñ te débordé. dëgg la ba keroog ngay gis lu tax mu kii. Eh, benn waaye dafa ne ki nga seen muy ñëw. nga bëgg ko. lam solo tax. dëgg la ki nga toogal nga bëgg ko. lam wax a tax. bu nga yàggee nga bëgg ko jikko caa. dëgg la kon jikko dafa am solo ci nit. dëgg la jikko jooju nag mooy waral ngay mën a sell. ndax doomu adama ndax jamono ji bu loolu dafa bari ci dëkk bi da nga gis ku jékki-jékki ba ci yàgg te xamuñu ne li nga wax sànq rek yàlla moom noppi na ci lépp. ala kulli alin sëñ Ibrahima li mu war a doon. nga xam ne yàlla sañe na ko. génn mënul fexe fexe fexe ba loolu agsi ci moom. xam nga as damay wax man su ma la nee kaw ko piir la. Mm-hmm. kaw ko piir. Mm-hmm. ma ñëw fii ci taax yi. Mm-hmm. fekk fi ñoo xam ñoo mat baay. ñii mat may ay mag. pourtant tey jii biñ ne émission bi seen xel ci mën nañ dem. ndeysaan pour lan jikko mais. kon ñoom kaw googu ñoo nga xam ne ci lañ doo yare mm-hmm. est-ce que duñ ci dellu yar xale yi. ta ta tey tey seen kii bi ngeen nekk bëri na bëri na bëri na bëri na ay nit. lool macha allah maanaam ñetti kuréel la sax. Mm-hmm. dafa am euh, kuréel bi nga xam ne ni Ousseynou Diop moo ko jiite. Mm-hmm. kooku ay kii lañ kuréel bu mag lañ. am na beneen kuréel boo xam Baye jiite kuréel bu mag lañ. Baye Sidi mel. Baye Sidi ñu ngi koy bu baax a baax suñu xarit lool. moo jiite kuréel bu mag lañ. bon ñu daan def chaque année ñuy def conférence. ren ñu ngi daal loolu ci marché daal jërëtu ko. nañuy jël benn lépp. def ko benn nga xam ne marché bi benn la. Mhm. léegi ñooñu bu ñu bu ñu imaginer ni diw pourtant tey lañ ma wax. Mhm. tey lañ ma woo ni mat dem ci émission bi. est-ce ma woo ni mat il faut nga dem ci émission bi. kon nag am na ci xam yaakaar nañ si man. Mhm. li ñu yaakaar si man yàlla boo fakk sax. amiin yaa rabbal mooy que nag li ma am. di ko di ko def sama fee. naa ko am def ko fii. dëgg la mais tricher boo baaxul. as ah, su ma waxee tey ba nga ba nga naw ma. Mm-hmm. ëllëg nga gis ma ci lu ma lu la neexul. Mm-hmm. mais looy wax. dëgg la de Maodo kii moo fi doon wax lii dëgg la de. maanaam gor su nekk dafa war xas. Mm-hmm. xas xam nga mooy xas. nga man de kenn du ma gis ci nangam. dëgg la walaay asim nga ni du ma ko loo mën a def maanaam war ngaa am bis boo xam da ngay xas ni nangam maanaam lu métti métti métti. ak lu lu bànneex bu rëy rëy rëy nga du ma ko def. loolee mu yeewul muy sa kàddu. dëgg la mais c' est fekk mënoo loolu rek. nekkagoo nit. desaanu kaamil mënoo ko am. dëgg la de moo tax moo tax la waykat bi wax sama ne as gor. day day day day regg lu mu soxla léegi ngir sànq ko deram nga xamante ne am na loo xam ne boo ko jëlee léegi sak sak sak sak sak soxla nga ko soxla nga ko lool waaye doo jaay sa ngor pour mën a pour mën a am loolu ku jël li nga moom lépp mm. lalloo moom dëgg la ku jël li nga moom lépp dëgg la lal li nga moom dëgg la gis nga li nga moom sax da nga see war a bàyyi dara mm-hmm. soo bëggee nekk su ko mm-hmm. xam nga gor ak ngor ak gore bokk mm-hmm. gor moom dañ naa kii diwoo ma jur diwoo ma jur ay gor la ngor yaa koy amal sa bopp. dëgg la. gore da ngay wét gore wétali ko gore. dëgg la maanaam mën ngaa dem foo xam tey jii leer nañ kenn gisu la. tey jii mën nga faa def loo xam lu la neex. nga ne fii de kenn gisuma bi waaye nga gore. nga gore sa diggante ak sa borom da ngay gore sa diggante ak sa borom gore gis nga li parce dañ ne ala kulli mm. foo jëm ñaari malaaka yi dëgg la dëgg la mais est ce que yow du ruus ñu ñu ñuy nettali. xam ne bu dëgg la seen a naw la day ruus. dëgg la de mais loolu mooy as gor. dëgg la as gor day xalaat. ba pare gore wét wét gore wétali ko gore. Mm-hmm. loolu mooy la ndax jamono ndax jamono ji fi ne ne daanaka boo nit ñu nekk alalu àdduna fëkk na leen te nit doomu aadama da nga mën a sant yàlla daa bari. Ah. ndax waxtu wii rek ñuy toog di waxtaan. am na ñoo xam taluñu ko. ña nga ci hôpital yi am ñoo xam ñu ngi leen teg fitna am ñoo xam suñu borom teg na leen ay nattu ñii duñu gis ñii duñu dunu dégg ñii duñu mënuñoo wax ñii mënuñoo dox ñii ña nga ca lalu hôpital yi bëgg a lekk mu tëleen ñii am na waxtu yu ñu toog nii am na am na nit ñoo xam ne fa ñu nekk yaa leen di fitnaal kon bu la yàlla mayee mayee mayee kattan ba nga ba nga ba nga toog wér ak conscience bu tranquille mais nit kooku noonu war est-ce sa sa sa sa jikko waru mën a defar ngir ngir di ko sant suñu borom. mooy manque de con conscience. xam nga manque de conscience mooy yow yaa ngi xëy maanaam ci nit ki nga man li gàttal. nga dox ba àgg fi ngay liggéey. santiroo même boo santiree sax santir santiroo loolu loo mën a looloo tee mën a liggéey. te xalaatu ci loolu. ngay xalaat yow yow lan lan mooy sa problème maanaam. yow lan nga war a am lan nga war a def nangam mm-hmm. pourtant li nga wax am na am na yoo xam ne foofu nga toog di xalaat mm-hmm. ñu ko dëgg la de am na ñoo xam ne toog di xalaat tëluñu ko mm-hmm. eh, dafa am ñoo xam tey jii même buñ amal àdduna lu si biir am nga luñ amul xam nga nu ko tubaab bi waxee nii la parfait sa la jël parfait kenn matul yàlla rek moo dëgg la de gis nga lu la lu la looy ñeete yi ci waa laa nëbb boppam am na lu mu la nëbb ci boppam loo xam boo xam ne da nga ne su su ma seen. ma am li mu ma am li ma am mu am li ma li ma am. dëgg la mais yow su jëm boobu da ngay xeeb loolu parce que naa moom de kii de. mu ngi ci confort bu baax. mu ngi ci nangam nangam. Mhm. au fond de cœur moom la muy dund moo ko xam. Mhm. d'ailleurs da la koy nëbbu sax su ñëwee si yow. da la koy nëbbu parce que yaa wuli yaa yaa wuli paaki sa bopp. Mhm. moom nag da lay nëbbu boppam. parce que yow ñee ko ba pare. ki nga ñee mënatu laa wax boppam. da bàyyi si biir te ay waa ji kii soo li may day dëgg la moo tax nit ki dafa war di xalaat maanaam ñi bàyyi mm-hmm. hôpital mm-hmm. armeel mm-hmm. ak kii doogu dëgg la ndeysaan eh, barki dem mu dégg benn waaye mu ne eh, néew bi day eh, day dajeeg liir bi muy dem néew bi dem liir biy garab si xam nga liir buy dudd ba ba ngëb loxo yi nii sa waaye ni ko luy ngëb loxo ko dégg naa àdduna giiroo fa giiroo am damay damay damay jàng bala maa àgg xoolal ma loolu ko man de maa ngi nii yóbbaale ma dara ndeysaan xam nga gis nga doomu aadama buy buy faatu li mu tàllal la loxo yi mun ko ma dem maa nii buy dem mm-hmm. dafa am loo xam ne ni àdduna daf nuy dab mais nit ki day juddu di ab liir jooy su jooyee rek mbokk yi kontaan mm-hmm. dañ nga xam ne daa leen roo mais suy génn àdduna lu ñuy def dañuy jooy parce que génn amatul amatul amatul ak ruubu wala ab jàngat la waaw nit ki diggante bi muy ree mm-hmm. bi muy jooy bi ngay jooy yow muy ree fexeel bu buy jooyaat yow ngay ree dëgg la ndeysaan fexeel ba buy jooyaat. Mhm. buy jooyaat yow ngay ree fa nga nekk na nga fa nekkee loo xam ne bu ëllëg yow da nga fay ree yow. Mhm. c'est parce que daal yàlla xaw ma yàlla moom maa maa nit ñi xam li ma yàlla dencal. Mhm. kon du ñuy jooy. dëgg la ndeysaan moo tax nag loolu ci ko moo koy def ci. dëgg la de leeral boobu de am na solo lool. lool lool lool lool ah, mu mu mel ni tam am na am regroupement des des terres bi. Mm. yéen yéen yéen ci ci ci dajaloo li nga xoon ay pàcc yi daan am ngeen def mujj ko ngeen def ko benn pàcc. da ci taxawal lu baree baree bari. sunu sunu borom yàlla dogal daanaka lu bari lu ñuy xew xewle. ci wàllu ci wàllu côté bu bari ay jotaay wala nangam ci ay kàddu dañ lay dañ lay dañ lay bàyyi xel. comme ni nga ko wax sànq ba ci ba ci ba ci jotaayu tey bi nii Al Ikhsan bi ngeen war a ñëw ñu dalal leen ñu ñu ñu ñu tànn la ci sa digganteeg mbokk kii kii yu noonu nu mu demee noonu ba ndax lu xew côté boobu noonu seen xel yi daj la. bon as. yow defe naa ne xëy na miinoo ma sax bu baax. mais man ku ma miin. xam ni man c'est naturel. donte tailleur laa nga xam ci ñoom laa nekk. mais Moustapha Seck xam nga ko. dëgg la. ma Massamba xam nga ko. dëgg la Ousseynou Ndiaye xam nga ko. Mm-hmm. et cetera et cetera maanaam boo dégg ci Sénégal mun naa ni. Mm-hmm. ci man la daan nekk. dëgg la comme comme comme amul benn jànkat boo xam ne di ko laaj ne ko Ibou Yade te xamul maanaam Ablaye Seck mi nga xam ñoom la ñu roy daan dawal oto ba sama atelier. ndeysaan gaare ko fa. ndeysaan xaadim ngay daan ñëw fii du am avocat dañuy ànd ak moom suñu daay mooy daal sopp suñu faal. sopp suñu faal la dégg nga si man. Mm. xamul man am am ci jàng. Mm. jàngal demal. Mm. maay maay jël micro bi maay nuyu waa tante bi. suñ paree maay santaat waa tante bi. ñu àndaat dem. comprendre nga Mor Masamba noonu la ñu nekkee. maanaam pour te dire man li ma lay wax rek. damay bañ daal wax la loo xam ne bu ëllëgee boo ñëwee dëgg la xale ba gën a daw ci marché laaj ko man maay kan dëgg la bu boobaa di nga xam man maay dëgg la donc waruma tagg sama bopp nag mais nag jàpp naa ni man damaa bëggoon xale yi góorgóorlu pour ëllëg ku ci mën a teg rek nga ne xam ne kii kat marché Moussa la jóge dëgg la loolu mooy suñu fierté maanaam kii marché mag la marché Moussa la jóge kenn mënu koo yeb man loolu moom laa bëgg mais pas question sama jëmmi bopp mais sama jëmm bopp daal man naa defaat musal bi daal bu fa kenn jóge dëgg la loolu loolu loolu loolu bokk na ci jikko ju rafet ah, loolu bokk na li tax li tey ñi nga tudd ñëpp ay ay nit ñu baax lan man ràññee naa la bu baax a baax waaye dafa am loo xamante ne ci lu baax rek laa la xam ci daayira yi bu dul budul budul téyeer bi maa ngi gis ngay ànd ak nit ñi ci daayira yi bari waa na ma fekk ñëw ci jotaay seen daayira boobu noonu ma gis la nga téye kàddu di wax. Eh, te loolu waaw waaw ma gis la nga jël kàddu di wax. tey te te njiit yooyu noonu du ko tëb tëb rek ba war koo doon ndax am na loo xamante ni coobare suñu borom la ak mbiru ndax mbiru du tëb tëb rek bu nga ñu jekkee rek ñu nga ne yaay jiite nit ñoo lay tànn xool sa jikko neex la du doy la ndax jikko ju rafet ndax jikko ju rafet. coobare suñu borom. Mm. bu ko mm. da koy xam da nga koy nga jëfe ko téye ko dëgg la. mais du caagi nag man dañ maa fal. Ah. wala dañ maa def nangam. en tant que jëwriñ. Ah. sopp Serigne Fall. Ah. wóolu ma fu ma dem rek. man yéeg daal ni man. maay jëwriñ dëgg la déedéet dëgg la. maanaam ñi may ràññee tànt. soo ma doo ma xam. dëgg la ndax ndax dal gi. ku ma ràññee cib tànt. su maa présenté. mais mënu maa ñëw rek nga ni kii mooy jëwriñ sopp dëgg la parce que tàmmuma loolu. boo ñi ngay jiite dafa am ñu la ci gën. as am na koo xam ne tey bu naanee nga naan nga texe. dëgg la de. am na koo xam bu naanee nga naan rek nga texe. loolu am na te xamoo ko. dëgg la de est-ce man maay ki nga xam dañ maa war a texeel. Mm-hmm. wala man maa ki war a texeel loolu am na mais est-ce que loolu doo ko def sa bopp. dëgg la de parce que yow nit ki da ngaa war moo ma gën. Mm-hmm. Seydina Jibril alayhi salaam dañ ko yàlla dafa toog ni ko. Mm-hmm. demal àdduna boo demee la gën a bon nga indil ma ko. wër wër wër wër dara. wër wër wër wër gisul dara. dellu ci yàlla ni ko man daal wax dëgg yàlla. wër naa wër mais lu ma gën a lu ma gën a bon man lu ma loo xam maa ko gën. Mhm. gisuma ko. ndeysaan yàlla ni ko delluwaat mu wër wër wër ba jaar mu gis xaj bu médd mu dem bu koy bëgg a indi mu ne ah xaj bii boo demee moom a gën. Mhm. naa ko fi bàyyi. Mhm. dama yàlla ma daal loo xam maa ko gën. yàlla ko gisoo fa dara mun ko xanaa benn xaj. daa ko bëgg a indi sax dama ni dama a gën ko boo ko indiwoon ma dégradé la. dëgg la xoolal la wax. ndeysaan xaj bu nëb. mu ne ko boo ko indiwee ma dégradé la. Seydina Jibril moom ndegam moom la ñuy wax loolu. na noonu. dëgg la pourtant kon yow war nga foo toll xam ne yow yaay kan yow nit rek nga. doo dara. parce que liñ naan nit boo ko dee doo dara mu mer. Mm. mais c'est dëgg la mais nit du dara. du dara de. xoolal fi ngay juddoo di ab liir ñu lay mënal. nga nga nga faatu di ab néew. Mm-hmm. ñu lay man a mm-hmm. mais diggante boobu diggante bu gàtt la. dëgg la de. te kenn xamul man est ce que naa àgg sama at li kenn mënul boppam lépp. kenn mënu ko. <laughs> dëgg la de loolu am na maanaam mm-hmm. na nga na nga simple. réglé surtout ngay mën a surtout loolu rek. waaw da nga toujours ci saako bi ngay dugg. dëgg la de. waaw parce que daas daal eh, instant eh, instant moom dëgg dëgg lu jar a waxtaanee la. dëgg la jamono ji nii. réer nañu. réer nañu. parce que nag wax dëgg yàlla mag ñi ñooy ñoo ñoo ñoo ñoo gën a sax booy xool ñàkk a tege ci instant dëgg la tege tegu ci yow mag moo xam tey boo ko dee xool da ngay xool ba ci amul lenn loo mën a roy ci moom doo ko mën a roy doo ko mën a roy ndax ñàkk na kersa <laughs> ñàkk ñàkk teggin voilà te bu toogee bu waxee ak yow rek mais nag waxtaan ne sa nga jéppi ko wala waxee nga jéppi ko mm-hmm. surtout wax mm-hmm. wax gis nga as day loo xam ne lu jar a sàmm la mm-hmm. bal yëpp mën naa rëcc mm-hmm. nga ni tayuma ko ba des wax mm-hmm. wax ku ko wax yaa ko tey mm-hmm. gis nga la koy wax nit ki da koy seet seetaat ko eh, neen doomu aadama bu bu bu yeewoo tiir yëpp ñooy dikk ci làmbañ ni ko nanga nu dimbali ngir yàlla soo baaxee rek nu baax waaye soo bonee rek tey di bon lor dëgg la de parce que mooy wax loo xam ne nii mooy tëj tëj tiir yëpp parce que ki nga xam ne wax na lu ëpp kooku toogaayam neexatul dëgg la de maanaam te daayam neexatul nit naa wax la nga xam. Mhm. def la nga xam boo. mosut dana la dëgg la. li mu ne wax wax boo waxee loo xam boo waxul boo waxul loo xam. Mhm. defoo loo xam boo dee ne rek am ko du nelaw. dëgg la loolu am na moom. parce la ba mhm. ko wax même boo nelawee kooku du nelaw. dëgg ba mu ba mu mu àgg. mu tegaat ci ab rido. dëgg la dëgg la de. kon bëgg na ko ci wax nga seetlu. dëgg la surtout loolu. dëgg la yooyu loolu waaw am na solo solo lool xam naa xam naa itam bu yéen regroupement bi fan yi am na loo leen wàcc. waaw fan yi nag ñu ngi ci def conférence. conférence waaw boo xam ne daal comme ni ma la waxee sànq. Mhm. Eh, ñetti kuréel ñetti kuréel moo am moo sant. Mhm. ñu def chaque année. Mhm. kenn ku ne def sa conférence. kenn ku ne am conférence boppam. léegi nag mhm. day mel ni kon mu sante bu ñu ne ànd nañu. Mhm. ci tayee bi. da nga naan non lu mu mën a amee. parce que ñetti kuréel nekk ci benn marché kenn ko ne di woote. wax dëgg yàlla ñu ngay woo sax dañu mujj am. waaw dañu am problème ndax mënuñoo wuyu kii bàyyi kii mu mënuñoo def kii bàyyi kii. léegi dañu ñu ni comme noonu la amee. dañu toog waxtaan. bon benn bi daal mooy li gën a rafet. ñun ñëpp ñu àndandoo. organiser benn conférence. ànd buñ ci jógee ñu xool nu ñuy dajale kuréel yooyu ba mën a ànd di benn loolu daal mooy li nga xam ne ñu moonu lëkkale ba la 17 bi incha allah. le 17 bi mooy conférence bi. ci mooy conférence bi. léegi bi moom fan fan lay amee. ci jumaa yi marché Moussa. ci biir jumaa ji ngeen koy defee ci biir jumaa ji fi lañ koy defee. Mhm. waaw léegi tamit Idrissa Gaye moo la koy defal. Mhm. bon xam nga tamit comme li ngay wax rek. Mhm. bëgg nañu. jikkoy xale yi gën a rafet. Mm-hmm. moo tax nag nuy woote. parce que booy woote da ngay woo xale boo xam ne. Mm-hmm. indi mag lu muy def. Mm-hmm. te xale bu ko gisee du rus. loolu aw yoon la. xale lu muy def te bu mag di gis. du kon loolu aw yoon dëgg la woote loo xam ne ñëpp ko a fekkee mm-hmm. muy conférence mm-hmm. ñu waxaat ndaw mm-hmm. waxaat suñuy jigéen waxaat ñun suñu biir tamit waxaat suñu moo waral lépp ci wàllu jikko rek wàllu ci jàpp ngeen ko defe naa la la la dix la dix sept sa mooy dix mooy samedi bi ñëw bu dellu see waaw incha allah léegi nan nan nan ngeen ko fas yéene taxawee waaw conférence bi dañoo bëgg daal bu ñu xëyee wàcce ay kaamil. Mhm. ñaanal mag ñi nga xam ne noo nekkoon ci marché bi. Mhm. ak ku mel ni Serigne Sall mhm. ak euh, ku mel ni imam Baba kii maam Ndiour. Tamsir Ndiour bi nekkoon ci euh, jumaa ji. ak maam Tam Ndiour maam Babacar. maam Tam waaw maam Tamsir maam Tamsir ak mboolem ñi nga xam ne daal ñoo wàññi ko ci biir marché bi. defee bu ñu defee bu ñu ci loolu. loolu ban waxtu lay doon ci wàllu kaamil bi. maanaam ay neuf heures. neuf lañ bëgg ñu defar kaamil yeeg yëpp daal. bu ko defee nag jublu si. wut woo waa marché bi ñu ñëw. ñu commencé di recevoir gan ñi. ban mise a mise à place bi ban ban waxtu lay doon. ñëpp fekke ko. trois heures bu ñu bu ñu jullee tisbaar ba pare. mais suba gi moom la kaamil bi. di di di di ci war a jàll yëpp. recevoir ay yeneen ñoo xam ne daal ñu ci marché bi mm-hmm. ñoo xam ne seen i xëy na seen kilifa ñoo nekk ci marché bi te wàññeeku ndeysaan ñoom tam la ñuy tamit koo xam da nga koy fekkee àla kulli haal mm-hmm. war nga koo yóbbati loo xam boo ko deful lii mënu yaa ma ko dëgg la dëgg la loolu taxaw ñu daal mm-hmm. nañu jëkkee ci nga xam ne ñoo fi bàyyi ko di leen ci rendre fàttali ko rendre hommage quoi rendre hommage bu suba gi lay doon suba gi lay doon bu fa jógee nag si ngoon gi trois heures ñu bu boobaa nag ci lañu commencé euh, bu Idrissa waxtaanee. bon ñu too ko parce que dañu bëgg bu boobaa tamit. ñu ko ak xel. ndax dañ ni man ngaa woo ku ne. mais woo ko xam ne bu waxee. bu ne dama ñëpp déglu ko borom xam waaw borom xam-xam bu ne dama ni xam. Mm-hmm. loolu lañ ci jublu. moo tax ñu dem andi Idrissa Gueye. pour mu waxtaan ak tey mm-hmm. parce que tey dafa compliqué. Mm-hmm. xam nga tey moom. li ngay li ngay li ngay daggate ay morceaux. dëgg la ngay amee sa xel. dëgg la parce que ki nga xam ne nii dafa jël benn benn hmm. di ko dagg di ko dagg di ko dagg ba nga yaakaar day yàq. Hmm. mu ba nga sol ko. dëgg kooku loo ko loo koy wax war nga dëgg la surtout loolu il faut ñu segglu tamit ñi nga xam ñoo ñuy waxtaanal. Hmm. lu ñu waxtaanal rek ñu mën koo jàpp xam ne ku fa jógee. di kii de lim la xam loolu daal moo sabab te taxawaayu conférence bi nga xam ne ñetti kuréel yu bu fi nekkoon kenn ku ne di woote ñu dajaloo ko mu doon benn kuréel kon conférence bi am na neneen nu mu war a bindoo moo tax daal vraiment. bëgg si eh, pour ñu àndandoo. Mhm. moo tax ñu sant jigéen ñëpp. Mhm. sol lu weex. Mhm. ba nga xam ne parce que weex moom xam nga couleur boo xam ne. waaw loolu message bu message bu am solo la. waaw am solo dañoo bëgg jigéen ñëpp. sol lu weex ba tey sax maa ngi dégg benn waay ku mel ni Serigne Mor Seye moom tamit mi ngi état sax mu ne pourtant jigéen ñi rek lañu wax lu weex mais góor ñi sax dañu war a sol lu weex. léegi loolu bi dangeen ko dangeen wax weex wi dangeen ko centraliser ci jigéen ñi rek wala ci góor ñi rek wala képp koo xam ne kuy ñëw la wala daal. ci jigéen ñi lañ ko ci jigéen ngeen ko ngeen ngeen ngeen ngeen ko kii waaw. dañoo bëgg daal jigéen buy ñëw. nga sol lu weex. te muuru comme ni ñu ko waxee. parce que gis nga kii dem ci conférence. war na faa yor comportement boo xam ne. kii conférence la jëm. su dul sax loo mën a njëkkee boo ko tàmmee. xay na bu ëllëgee. di nga mën a am yu baree baree bëri. di ko mën a Mm-hmm. waaye dikk ci confrance mel na la neex ci loo mm-hmm. xam ne wax dëgg yàlla mm-hmm. gënul gënul ci conférence loolu tamit buñ sañ daal jigéen guy ñëw nga bàyyi ci xel bon di di di atta di tamit attirer seen attention ci pour sorxo sorxo góor ak jigéen daal buñ sañ tamit ñu am fu ñu yem daal parce que daal mm. bu ñu sañoon ci jotaay ba bon lépp rek. Mm. tegu tegu tegu ci tegu tegu tegu ci diine waaw. waaw mais teg image yoo xam ne boo ko mm. tegee. kenn ku ne waa lii nga diine la ñuy wax wala naan. suñu sañoon daal daal ñu woote woote bi daal. bëgg képp kuy dikk daal nga xam ne lii. nekkul loo xam ne folklore la wala nanga mais diine ma la fa indi. sàkk fa xam-xam. sàkk fa tamit jikko boo xam ne dafa loolu daal la ci doon sàkk. comme ni ni ni ni ngeen ko waxee ci tàmbali bi suba gi mise en place bi trois heures li doon ban waxtu ngeen jàpp ni itam bi bis bi war na mën war na fa mën a jeex. waaw kon dañ koo jàppal ci ne bu ñu jullee gee ba pare. waaw après tout daal ci lay ci lay ci lay jeex. waaw te conférence conférencier bi ban heure lay jël boo ko defee ñiy seetaan. ak ñi nga mën a yëg la waaw maanaam quatre heures mhm. bëgg nañ conférencier bi jël jël tàmbali waxtaan bi jël waxtaanam mhm. bu ñu defee ba xam naa trente minutes mhm. ñu def pause julli doo continué waat conférence conférence conférence bu ba tamit tamit ñu pausaat julli ba gee ba gee boo fa fa après bu gee gee la daal ci la ci la kii daal moom incha allah lay dëgg la ñu bàyyi la nga woote ñi nga ñi nga ñi nga bëgg a woote mbokk jërëjëf As maa ngi woo mboolem képp koo xam ne day nas puso. tàmbalee ko sama sëriñ Mouhamadou Seck. mi nga xam ne ni moom la yàlla jiital ci barab bii. Eh, ak kuréel bi mu jiite bépp nag. muy régional. tey bu nekk Thiès rek mooy sa kilifa. kon noo ngi ko ci woo bu baax a baax. di ci woo tamit mboolem képp koo xam ne yaa ngi marché Moussane. bawuñu góor bawuñu jigéen commerçant tey bawuñu kenn. di tamit mboolem suñu mbokk yi xam ne ci yeneen marché yi. xel koom xel ga ak fu mu mën a doon rek su safraa safaraakoo noonu woo ñëpp di woo tamit sama mbokki bopp yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ak man instant suma seen ñëpp ñëw di woo tamit képp koo xam ne nii sëñ Fallou sop soppe la nga xam ne guddi gii nu jëm mooy guddeem te mooy sunu. moom laa moom laa bëggoon ñu tëjee ko sax. ki ci si ci si Kazu Rajab bi. da bëggoon bàyyi ba nga jàllale kii man la nag ban message ban loolu ñu baaxee ci tuuti sëñ Fallou benn benn benn temps. Hmm. bu xaw a kii rek ñu tëjee ko émission bi. Ah, xam naa mais mais ñëwal ci woote bi ba pare rek. waaw ñu wootee maanaam képp koo xam ne rek. Hmm. bokk ko sopp Serigne Fallou. Hmm. maanaam parce que ñun sëñ Fallou am. yàlla nu ko séddee. ndeysaan. Eh, xëy nag li ñu wax rek ku ne am nga Serigne. waaye tey bu ñu demee ba ni sopp Serigne Fallou. def ko daayira kon daayira boobu su ma seen ñëpp teew. Mhm. te daayira boobu ku di mhm. jànkat yaa ngi ci biir. Mhm. bawuñu kenn. dëgg la bawuñu fenn. fu waay mën a nekk ni lay woo ci kii boobu. di woo soo mbokki instant yi. di woo mbokku euh, Cité Senghor. ba xël ga ba bawuñu fenn daal. suñu sañoon daal boo lem kuy képp koo xam da ngay nës bu tamit. nga teel a jóg teel a ñëw. maanaam teeru gan yi loolu la suñu yéene mooy képp ku nekk Moussa te moom bàyyi lépp loo jàpp le 17 nga ñëw ci conférence bi xam naa xam naa ak yeneen yeneen téer yi nekk yeneen yeneen yeneen gox yi waaw moom lay wax ma ne mhm. comme Mouhamadou Seck mhm. lépp lu mu jiite ci téer mhm. dañ laa woo bawuñu kenn maanaam li ma waxoon marché marché marché bu mag bi bawuñu kenn képp ku fi ci marché grand caisse ak xel ko moom fépp daal xel ko waaw xel ga waaw ak marché euh, occas ak waaw marché occas ak ñi nga xam ne dañoo ay atelier ci bi sut na ñi nga xam ne ñoo am ay atelier ci koñ yi mm-hmm. parce que ñooñu tamit la kon nag ñooñu ñu ngi leen a mm-hmm. mm-hmm. nga ñëwaale ñu xam fa nga nekk ba bu ëllëgi mu ñu séq a xam fu fu ñu séq bëgg na daal nekk ci koñ yi wala marché boo mën jógee xam ne marché bii nga jógee ba bu ëllëgee nu tam waa mu sante kenn du leen kenn du leen dem naa ni bu ëllëgee nu tam nu mën laa fay bopp dëgg la ah, waaw loolu lañ bëgg si incha allah képp ku mën doon nga teew ci bis boobu woote boobu le 17 waaw le 17 mooy samedi bi ñoom dellu see ah, comme comme ñu dégg ñu déggee ko noonu xam naa tey dañoo nekk euh, ñu déggee ko noonu ni mu ko waxee ki yi nga xam ne regroupement des tailleurs di woote événement bu mag te tailleurs yi moom bu nee bu nee ñu ëpp doolee ci dëkk bi ci dëkk bi dañ naan tailleurs la ndax marché boo dem ñoo fa ëpp bu jaaykatu lujum yi jàllee marché boo dem téer yi ñoo fa ëpp. dama ne kuy jaay. waaw te bëgg sam jaay neex. da ngay sol da ngay sol dëgg la. ndax gis nga dafa nekk métier moo xam ne. Mhm. ku ko yoru mhm. ñu wutal la weneen tur dëgg la de waa loolu mën naa képp koo gis moo xam muy dem <laughs> te nekkul ci loo xam ne ni téyere ko téyere fa jaar mhm. beneen tur ngay am dëgg la la am moom kon képp koo xam ne yaa ngi solo mhm. ñu ngi lay woo ci gis boobu dëgg la kuy solo rek la ñu wax waaw parce que même boo ñu bisu ñëpp la bisu ñëpp la kay te loo sol rek téyere ko bi bisu ñëpp la kay dañ naa beneen tur nga. dëgg la tur woowu nag comme nag yàlla doxal na yow bokk nga ci. Mm-hmm. tur la mën a wooyee muy turu. Eh, ah, waaw Asma wala eh, Ibrahima Yade. Mm-hmm. kon kuy ku am tur woowu rek ñu ngi lay woo ci bis dëgg la jërëjëf kon kon kon bis baa ngi noonu ñu ñëpp ñu bokk koo waaj ñi nga xamante ne dañoo nekk kees li nga xamante ne bu ñu solo téer yi la xew-xew yi téer yi la lu mënti am. ci ci wàllu ci wàllu doxalin ci nit ki war a génn mu ñëpp gis ko loolu ñëpp dañuy xam ne téyeer la kuy xew dinaan maa ngi dem sama téyeer bi mm-hmm. lu mën ti am na maa ngi dem seeti sama téyeer bi waaw maa ngi dem seeti sama téere maa ngi dem seeti nangam maa ngi dem seeti sama téere bi kon téere fi ne ni gàcce ngalaama yàlla bu bu seetaan am ci yéen yoolu su ko defee nag sëñ Ibrahima comme yoo nga jiite daayira sopp sëñ Fallou ñu nekk ci weeru rajab ñu nekk ci weer bi nga xam ne mooy weeru sëriñ Fallou beneen bi mooy nga xam ne ñaari fan moo dox ci suñu digganteeg euh, bis bi lan nga ñuy baaxee lu lu lu gàtt rek ñu tàggatoo ko émission ci sëriñ Fallou ndax loolu mun te ñàkk. ba as. Mhm. sëñ Fallou. Mhm. man daaru laa. Mhm. sëñ Modou Mahfous mooy sama sëñ. sëñ Modou Mahfous ndeysaan moom may moom. Sëriñ baax dëgg la waaye sëñ Fall dama cee mel noo xam ne mhm. ñëpp a ko xam. Mhm. soo ma doon nax tey sa ma nga nax ma ci sëñ Fall. ndeysaan cëy. muy guddi goo xam nag. Mhm. du guddi gu yomb de. dëgg la du guddi gu yomb. maanaam guddi sëñ Fall. dafa am lu mu tombeel muy riñaan gi ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. est-ce que xam nga mooy riñaan. sëñ Tuubaa dañuy. قد حاس فقرة la faj maanaam yonent ba mu dem jaa dem dëgg la du gént du gént jëmm jaa dem xam nga jëmm jaa dem la wax ndax dañ guddi gi fu mu làmb dab yu yow est-ce que xam nga pour nga génn suñu atmosphère bi ñaata temps la kéemaan la kay atmosphère pour nga génn ko moom ba muy dem moom fa mu dem pour nga génn su atmosphère bi. Mm-hmm. benn waaye nee na quinze milliards d'années. Mm-hmm. quinze milliards vitesse dëgg la ngay daw doo ko génn fii. Mm-hmm. te nee boo génnee fii. bay buti ci yàlla. yaa ngi mel ni ku jógee Dakar taxaw sa butu ko dem daal. quinze milliards d'années. nga daw ko ci benn guddi. waaw ndax bu sëñ Tuubaa ak sëñ Musaa Ka mu ko si barsan sax boo gisee yonent bi bi muy bi muy waajee riñaan yi guddi googu Jibril la ñëw ak alburaax. gis nga alburaax bu mu ñëwee. te alburaax. préparé wuñ ko pour pour pour pour jël ko pour pour mu ñëw de. xam nga yéeneem bu rafet. yéeneem yéeneem. waaw yéeneem bi mu toogee ndax Jibril mi ngi ñëw di wër. di wër. bi mu ñëwee ci jikko am na ndax xam naa boobu jotaay bi moo ko moo moo ko dul may. ne moom jikko ju rafet ay gi mu amoon pour Jibril am ñeneen ñu mu jël suñu borom mi ko yow la yow la yow yow Jibril suñu borom Jibril yow la mujj tànn. dëgg la gis nga. ndax jikko ju rafet ay yéene mu amoon ci nit ñu baax yi rek. jikko ju rafet mhm. moo waral ñu tànn. comme ni ma la wax rek. Mm. julli rek mooy li nga xam ni nii. Mm. dañ koo jëlee nit ci suuf mu jëm ca kaw. Mm. ah est-ce que xam nga ni am na fooy toll ci ci ci ci kaw. di nga néew ba toj. dëgg la am na foo xam tamit at maanaam kii oxygène bi nga war a nooyu. mënoo koo am. pourtant naa Jibril bi mu ñëw di jël seen bi sallallahu alayhi wasallam lépp la indaale. dëgg la da koo indaale uuf ko. muur ko ci laafam ba fa mu war a àgg di toj. loolu da fa wàññi dara. mu mel tamit fi nga war a xam ne oxygène bi mu war a soxla lépp def na ko ci laaj. ndeysaan léegi yow ñu joxe foofu nit julli. mu ñëw ni julli moo am. yow nga dem ba bisu sëñ Fall nga ne ah sëñ Fall lépp léppay moom. jeexal déedéet. dëgg la boo demee da ngay julli jàpp ni maanaam dafa am bis bii lu mu tombeel. Mm-hmm. te maanaam am amul ñu am sens tombeel mm-hmm. bis bi yombut de. Mm-hmm. wax histoire bi li waral bis bi. voilà da ak li waral nit ñi. di dem di dem di Kazu Rajab. waaw Kazu Rajab mooy. gane mm-hmm. euh, Seydina Sëriñ Fallu. Mm-hmm. mooy bis bi mu gane àdduna. Mm-hmm. kon bis bi mu gane àdduna bu dajee bis bi ñu war a wàccee julli. boobu bis jagleel la si dëgg la sëñ Fall dafa am jaglee goo xam ne tamit maanaam maanaam doomu sëñ Tuubaa yëpp koo ci jàpp rek nee mooma dëgg la waaye sëñ Fall dafa am lu lu mu am loo xam ne nii ñëpp dañ cee maase ni kii sëñ Fall la ko moom dëgg la maanaam foo mën a waxee. Hmm. jigéen sax boo koy ñaanal yàlla nga am suñu faalu. suñu faalu ndeysaan yàlla nga am suñu la parce que moo jaay naa sama njureel. Hmm, jënd ko ak taalibe jënd ko ak taalibe. mu soo ma ko jaayee soo ma soo ko jëndee ba mu jar. Hmm. jënd ko joxaat naa la bu kon defe ne kon kooku deseetul dara. boo demee ci ci fosti Serigne Touba hadiyati la hadiyati xosi bi la. raddin kama toqi bi la. loolu la wax. ndeysaan sama waaye bu ma ko delloo. kon nag moom tam sëñ Fall noonu la defaat. ndeysaan sama addi yaa ngi nii mooy dama laay jaay njureel gi. Ah. nga jënd ko ba mu jar. Ah. waaye nag bu ma ko delloo joxaat naa la dégg. ndeysaan loolu nag moo waral amul kenn benn benn murit boo xam ne dina am sago sëriñ. sëñ Fall dëgg la loolu am na sëñ Fall muy nit koo xam ne nii. Mm-hmm. maanaam xar baax yi yi mu làmbool. Mm-hmm. maanaam képp koo xam ne nii yow nee na leen sëñ Fall ngay ngay ngay dund. Mm-hmm. walaay na nga wéet sa bisu bopp. dëgg la nga ni sëñ Fall naan. non yàlla mooy def mais dafa jubóog sëñ Fall. dëgg la looloo am na moom. maanaam gis nga nit ñi dañ naan. borom mu am. borom kun dafa dafa lëkkaloo kuni yàlla. dëgg la xam nga as su fekkee tey jii man damaa dend ak yow. ngay jaay géej. nu may def. xeeñ géej rek dëgg la de. man su ma dendee yow nga xeeñ parf ngay jaay parfum nu may def. dëgg la parfum ngay xeeñ géej. moo tax sëñ Tuba sëñ Fall dafa mel noonu ci yàlla. Mhm. maa dafa dem ba léppam di yàlla léppam di Sëriñ Tuubaa moo tax lépp lu mu soxlaat yàlla def ko dëgg la ndeysaan moo tax ñu naan borom kun ndeysaan mais yàlla ne xam ne nun bokkaale wuñ dëgg la moom moom kun mais yàlla am na ci lu mu lu mu sàkkal mm-hmm. parce que tey lim la jox joxuma ko dëgg la lim ma jox joxuloo ko mm-hmm. mais kon gis nga doomu aadama mm-hmm. ñu doonoo gaaw ci diw day bokkaale dëgg la as eh, eh, kii kii dof la lu tax ñu naan kii dof la dafay def yëfu dof. dafay def yëfu dof dëgg la ki nga xam ne deful awul yoon lu dul yoonu hmm. ah, kii de yàlla yàlla. yàlla kese la waaw yàlla kese la dëgg la yàlla kese la yow nga bañ ne kee dof dof dof hmm. hmm. kese la. pourquoi nga ne kee dof kese kii nga ni du yàlla yàlla sax kenn mënul tëb tëb rek àgg ci moom. déedéet daa am fooy jaar gis nga dafa am. da tax mu wàcc ay yonent wàcc ay wàcc wàcc ay. yàlla gis nga bu bu defee gis nga yàlla moo ni maanaam euh, duma bind ab yonent du ma bind ab yonent loolu la wax de waaye nag boo bi xudrati yi yafxalu maa yasaalo mm-hmm. sama kàttan ci laay def lu ma sob mm-hmm. lu ma soob yàlla lan la mm-hmm. yàlla li ko soob mooy la li ko soob mënoo cee génne lu ëpp yonent dëgg la mënoo cee génne lu ëpp xut bu sama dëgg la kon maandu ci mbiri yàlla dëgg la bu dëkk yàlla fenn suñ saam dafa nii kii weddi toujours moo gën a moo moo gën a jafele kii saxal ndax boo weddee ni as ngoom as ngoom yàlla la parce que moom man ma dem ci la ah si yàlla la. sama xel dem ci yàlla. nga yàlla. Mhm. mais kon yow yàlla mënu yàlla koo def loo xam ne fu ko gisee sama xel dem ci moom. mais da ngay xool ab sëriñ sax ab sëriñ. nga xamante ne day wéet di wéetal yàlla. Mhm. nekk ci mbiru sunu borom di bu heure tëdd mi ngi wéet. di kennal sunu borom di wéet di jaamu yàlla dinaa fi def ay nàngam di tax sëriñ boobu bu nee cëpp soo ko gisee yow mi nga xam nit nga sa cër day mel day damm. say laaf damm say lépp damm da ngay xam ne kon kooku jege gi mu jege sunu borom la. as nit ñemewul yàlla. dëgg la de. nit ñemewul yàlla. dëgg la ku la ko gën ku la ko gën a ku la ko gën a la ko gën a ragal. nga am nga jox ko ci. dëgg la loolu am ku la gën a ragal yàlla. jërëjëf boo gisee maire yi wala paa yi ku ci nekk di ragal ay néew. Mm-hmm. lu tax. yaakaar ci yàlla la jëm ah, waaw et puis ak jege gi mu jege suñu borom. dëgg la loolu tax ñu ne ko moo tax gars yi dañu mais néew dara. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la de parce que yow as ma ñëw ma yee la. Ah. as jógal jógal jógal nangam jot ah. moo gën yow ma dem di ubbi néew. dëgg la de. <laughs> parce que day dem na ci yàlla. dëgg la kon yàlla jooju maanaam il faut ñu jox ko cëram. Mm-hmm. sëñ Fall da ci am cër bu bu am solo. boo xam ne moom la ko yàlla jagleel. kenn ku ne da ngay am sa jagleel mais sëñ sëñ Fall yàllaa ko jagleel loolu. Mm-hmm. yàllaa ko faale ba na tey màggal gii def maanaam ku ci ku ci bëgg. ku da ngay bëgg a dem ci màggal. ndeysaan yàllaa ko def moo toll noonu. bon as <laughs> <laughs> naa jërëjëf xam naa ne sëñ Fall bu ñu fii ba suba. du nu du nu du nu nu doyal. parce que itam ndax weeru day weeram. ba pare mu nekk ci xolu nit ñi loolu yàlla def na ko yow it nga nga nga bokk daara pare jiite daare soppee si fàllu kon cofeel gi nga am ci ci sëriñ fàllu moo waral loolu am na loo xam ne nit ki du ko tëb di ko wutal boppam ay jagle la ay jagle yu dagee yu daje la xam naa ne tey waxtaan am na solo lool ndax dina ñëw ci wàllu jikko ñëw ci conférence bi ba ñëw ci sëñ Fallou dañ lay bàyyi nga jox sa nga nuyoo nga jox sa kàddu mujj rek. waaw Baas. Mhm. maa ngi dañuy joxal sa wàccuwaay. Mhm. dañuy naan tamit émission bi ngay def. Mhm. yàlla ci yàlla teg loxo. amiin yaa rabbal aalamiin yàlla boo ci gis sa bopp. amiin yaa rabbal aalamiin yàlla boo réeral yàlla boo ruural. amiin yaa rabbal ndax doomu aadama. Mhm. kenn ko ne sàmm nga. sàmm ñaar rek la bañ. réeral ak ruural ak ruural dëgg la. te boo boo boo boo réer boo réeralee say wax rek. dinañu ruur. dëgg la de gis nga fi nga toll ni wax isaan. bis boo réeréer say wax. Mhm. il faut ñu ruur. dëgg la yàlla bu la yàlla def nga kuy ruur. amiin wala kuy réer. amiin yaa rabbal aalamiin émission bi am na solo. Mhm. di sant bu baax waa kër gi. Mhm. Eh, comme ni ngeen ko defee parce que lii ak jàpp la. bon nit ki ñëw ngeen yaatal ko. parce que li gën a li gën a neex ci ci doomu aadama mooy nit ki buy ñëw. kanam yi mu fiy fekk. dëgg la te eh, tubaarkàlla loolu lañ fi fekk. sant ci bu baax a baax. kon loolu leen di gërëm di gërëm tamit. waa marché bi ma yebal. ndeysaan tànn ma ba. jox ma ni ma demal ci conférence boobu. nga fexe daal nekkal nga président représentatif émission boobu. man aw ma seen pay. yàlla mi am pay laa leen di bàyyi leen. yàlla na leen yàlla fay. amiin di ñaan tamit xale yi fa nekk. yàlla na yàlla def ñu mokkal seen métier. ba lépp lu ñuy wut ci pour sama am ko. conférence bi ñu jëm yàlla na ci àgg ak jàmm. samedi génn ci ak jàmm. incha allah samedi bii ñëw bu dellusee. waaw samedi bii di ñëw bu dellusee. incha allah la di sant jërëjëf sëñ Ibrahima Yàdd di nit ku baax moom lañ dalal ci Al Ihsan di nit ku yàlla baaxal ci ci yar gi ak dal gi man xam naa ko bu yàgg parce que daanaka sax ñoom ñoo ma yar ndax bi ñu doon ay xale ñoom ñi ngi nekk boole ko seen daayira di dox ci daayira yi daayira Mawahibou am am nga ci cër. Mm-hmm. daayira waaw waa Kaana xaqan am nga ci cër. waaw as bi sutóor yu baree bari yu dajalu jox waaw yu bari yu bari dajalu ci yu ma lay gis te fu ma la gis wax dëgg yàlla yar gi ak dal gi ak taalibe gi moom mooy mooy mooy mooy nëbb lu baree bari ci yow te ku nekk loola ngay ñaan di la ñaanal suñu borom gën a yokk say taw féex ba yéene bi nga am ci ci ci ci ci liggéey bi yéene bi nga am li nga wax sànq su marché bëgguma kenn ku fay jógee ci ab téyeer te yóbbaale wu jikko ju rafet te tëggoo ci ay conditions yu am solo loolu dafa am solo loolu dafa am solo fi ne ñu bari dañoo yàkkamti ñu baree bari nu xaaratunu banu banu banu banu yeewi leen te loo doonul taalibeem mm. munoo doon sëriñam loolu pour mu leer ci ñëpp nit sala nit jamono nag moo neexal léegi nit da ngay dara nekk ci dara war a tarbiya jekki-jekki ku mel ni sama jarbaat nguy nga ñawal ko benn affaire bu ndaw mu tëjee sawaay yaa koy toj sawaay temps yi li ngay ñaw laay sawaay mi ngeen mi ngeen nekk waaye kii yaa man berul nangam nangam di fekk yow mokkalu góo day mooy indi yu baree baree bari da leen nangoo tarbiya ndax nit boo nekk ñu xool la ba nga kii la ñu war laay ñaanal foo dem na koy bàlle barke boobu barke mooy lépp barke du jeex barke du daj barke du dog loo gis ci àdduna day jeex mais barke da lay topp fépp ba ci biir bàmmeel ba ëllëg barke da lay topp nu ma yi fi tudd ñëpp ci barke ba ci seen seen barke la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy noose ba léegi seen barke la ñuy taataan kon képp koo xam da ngay dund téer bul yàkkamti doon di jàng métier bul yàkkamti loo doonul taalibe mënoo doon sëriñam patron yi leen nekkal di leen respecté te ngeen ba ñëw ut koom-koomu àdduna fexe leen ma xam-xam bi ëpp doole ci yéen koom-koomu àdduna boo koy wut ci téer man sama patron du ma jox. sa patron boo bëggee wàcc mu jox la xam-xam bi nga war a liggéey foofu du sotti da leen njëkk ci xam-xam moo ëpp solo patron war ngaa wàcc sama kër benn junni di la jox nga ne ko nga ne ko patron bàyyil ma yóbbu téeméer bi paas si yow ñaa yow nañ xam-xam yi la dugg rek mais léegi xale yi nangootuñu loolu jàpp nañ comme koom bi bu mu wàccee rek wala événement bi ni wala lii dama ci waram ndax xam-xam moo ëpp doole da leen jàng métier booy xasee ba am jékki bu dikki boo amee lu xas ba dugg ci yow rek la ne li des lépp foo da nga koy yóbbaale te ngeen bañ a yàkkam di ci dara loolu laa leen message ndax dama ci bari ay xarit man téyeer jaar naa ci ku ma doo ko xam maa ngi doon maa ngi doon ñëw fële ca place Cheikh Seye. te tamit Cheikh Seye moomu. waaw moom laa leen a sant la. ndeysaan suñ patron muy Daouda Ndiaye. waaw koy ñaanal ak wér. ndeysaan Daouda Ndiaye moo nu jàngal ñaw. ndeysaan moo nu tari. day Daouda ndeysaan. Eh, jamono bi may dikk ci ci ci ci Daouda. Mhm. sama tante bi ñëw na ba ci moom. Mhm. ni ko dimbali su ngir yàlla pour muy wax. ndeysaan. di mu rek wax rek moom xoolal lool rek ndax mën naa xëy ba ngoon jot du dégg kàddu kàddu ndeysaan dëgg la daaw di ngaa ñu leen kii bu sabaa dina wax ndeysaan yàlla dimbali ba ma nekkee si moom mm-hmm. xëy na lu baree ba def na ko. kese dëgg la ndeysaan sunu baay daaw de. Mm-hmm. ndeysaan Cheikh Seye jaar naa ci moom bay bi may ñëw ay moyo man jaar naa ci tëye ko ko ma ko waxul doo ko xam daanaa am danaa ma ñëw may tegal ay kilo teg ay moyo yu kenn ah. xamul. Ah. may rëfër rëfër rek ku baax la nag di ko ñaan sunu borom moom it ah. entreprise bi mu yor sunu borom dafal ko ci taw féex. dafal ko ci taw féex ndax bari naa fa ay xarit. Matar Seye rek ji. Mm-hmm. ñëpp xam ma ak moom. lépp lu ma bëgg soo nee Matar mu defal ma ko. kon loolu kóllëre googu seex bu nu gisantee du nu gisantee ñaar rëkkati làmbul jox ma. te kon ma wax la loo xamul seex moom. seex mhm. du ñu tase fenn du maa xalal mi ngi noonu. fu ñu nekk maanaam lépp a baax. loolu lépp jikko ji rafet na. maanaam may nit koo xam ne ku oyof laa. ndeysaan dëgg la am na lu yàlla dëgg jikko ji daf lay woo damay woo atleem ni ma mm. wax nangam ak nangam bi bi ñuy def conférence bi fii mm-hmm. ñëw na fii ñëw na fii ah. yéen ngeen ñëw fi taxaw taxaw bu am solo ko defee mm-hmm. ba ñu baree ci lu ñu xewle rek buñ ko la ñu la ñaanal suñu borom gën la yokk mm-hmm. yokk say tawfeex gisee di mu ko waxee sànq biir waxtaanam indi indil nañu ci al al ihsan indil nañu ci li ko Serigne Touba Serigne Touba moom dañoo jàngal lépp ba ci jikko xale bu bëggee sax yor yor jikko ju rafet bi na nañu téere boo xamante ne sax doo ko jagleel ndaw ñi. waaw tasawur si xaar gis nga masaalikul jinaan bu buñ ci tënkuwoon sax day defar réew. day defar àdduna te ñuy jàng doxi réew sax suñ tubaab bindal nañu ko bàyyiwul dara. ñun ñoo fi bàyyi suñu yëfi mag ñi dem di sàkku leneen moo nu waral moo moo tax lépp ju ñu ñu ñu dugg ci dund boo xoolee mag ñi dañuy ànde woon Serigne Touba maam El Hadj Malick Serigne Touba maam Limamou Laye Boukounta ma ca Ndiassane kilifa gi ni ñu bon man ko woon doonoon benn ba nga xamante ni seen lépp day yàlla ak yonent bi lépp tënku ci diine ñun ñu bëgg a ñëw jëpp jamono ji bëgg a bëgg a wasaare lool te ñoom seen i barke ba léegi ci la ñuy dund te seen i barke ba léegi la ñu ci lañu ci ñu ci dund moom te tey waxtaan nga ci lu am solo indil nga nu ci ci wàllu jikko ba li ko Serigne Touba indeew ci kun kaati man nga indil ñu am na loolu bayit yoonu indil ca masaalik te xam naa sunu jotaay dinañ amaat beneen jotaay nag ñu mën a waxtaan ci yu yaatoo yaatoo yaatu du ñàkk al ihsan sa ñëw ba ca place ba ñu waxtaan ci wàllu ci wàllu ci wàllu jikko yi léegi di waxtaan di dëgg-dëgg sëñ Ibrahima Yade fi nga déparé ba si fii al dina ñëw ba sa place ba ñu waxtaanee loolu fi ngay départ kon li nga da ngaa dugg ci kaw bu am solo ndax biñ lay doog indi sëñ Daawda bàyyi mm-hmm. daaw di ko ñaan suróom dolli wér mm-hmm. ak kattan bëri na ay kàngam mm-hmm. yooyu dëkk tudd ci ci dëkk bi yor ay entreprise yor ay téer te ci moom lañ jaar man xam naa kii bari bari ba ci Seex Sëy ak ñeneen ak ñeneen ak ak yow li nga wax di ko ñaan suróom gën ko yolli tawfeex tey al irsan conférence bi tam ni mu ko waxee conférence tailleur yi la de tailleur yëpp ñëw képp koo xamante ni sax tailleur si bu ñu yem ci ñëw kase ñu ñuy ñawal tailleur bu nekk am nga lonkool ngay ñawal ñu doon say ñu doon say ñu doon say say say say client invité leen ci conférence bi ngeen jël carte yóbbu ko seeni client affaire doonatul tailleur bi kase tailleur beeg ak euh, client bi ñoom ñëpp ñoo bokk ñoo bokk objectif ndax communication dafa war di am saa su nekk kon na ñëpp ñëw rawatina ki koy waxtaan te borom xam-xam bëgg na ñëpp jële fa njariñ mooy Idrissa Gueye borom xam-xam la ndax ndax itam ngeen ngeen fi ne nii dina ngeen tànn ko tey borom jikko ju rafet la. sa bu dee waxtaan jëlee xam-xam. te dina dina day dindi stress. stress sax stress Idrissa waxtaanam di nga rey di nga ko jëlee xam-xam. ko mel ni sunu sama jabaat nguy hmm. moom moom dina def dina def délégation bu am solo. ñëw parce que itam. ñun bi ñuy def fii bis da ngeen waa groupement euh, télé bi ñuy def conférence daaw hmm. da ngeen a ñëw def délégation bu yaatu ñëw kon bi kenn du des. ndax télé bi itam ci biir liggéey bi yéen a formé télé bi. Hmm. regroupement ñoo moom tele bi. ndax ki jiite liggéey bi di Mamadou sekk nga xam ne du du du sonn ci liggéey bi. moom ba du Seck dama ni moom bu yokk rek ñëpp yokk. xam nga mbir. boo ci nekkee da ngay ñaan ki ko yor yokk bu ko yoree yow mi ne ci biir da yokk ndax lépp ay yokk di ko ñaanal suñu borom gën ko yokk ay feex di ñaanal Serigne Khadim Soumaré nga xam ne sonn na ci ci ci invitation bi am ba mu waxee dama ne ko loolu day am chaque instant mi ngi may mi ngi naa ma sax foo nekk ba invité bi di la jiitu nga xamante ni moom it du tàyyi di sonn ci liggéey bi moom day moom dafa ànd ak rigueur Khadim moom moom nit ki na mu mel xam ne am ñoo xam lu ñu dugg dañu bëgg mu dox dafa am si genre de yooyu lu ñu bëggu rek dañ ci doxee xëtër des fois sax nga tànkte teg ñoom fekk lépp liggéey bee ko waral liggéey bu bëgg a dox foofu tànkante am ci ah. liggéey bu bëgg a dox foofu tànkante am ci ah, ndax waaw kii day jàppe boor ba bale ah. kii gisanale kii gisanale te boo boolee kenn ku ne boo gëstoo pour bëgg a bi dox la waaw loolu mënul ñàkk ci ab liggéey waaye bu ñu boolee lépp rek hmm. day tënkuwaat ci ci ci bëgg lu baax ak di ko doxe di ñaanal sama jarbaat nguy sunu borom may ko it borom korom kii bu am solo waaw balaa yàgg dara tarkal la waaw di ko ñaanal di ko di ñaanal euh, directeur euh, kii technicien yi di Babacar di ko ñaanal it caméraman bi di maam maam alaaji sunu boobu gën koo gën gën gën koo taxaw it wëlba gën a wëlbati xelam it muy gën di bëgg góor yàlla itam ni muy bëggee soxna yi di ko bëggee góor yàlla yi kon al ihsan loolu leen indi lool tey ki ko doon def seen mbokkum taalibe Baye mag itam muy sëñ Ibrahima Yade borom jikko ju rafet incha allah rabbi kon beneen yoon ci émission Alexandre jërë ngeen jëf.